asalaamaaleykum jógee euh, région Kaffrine nekk présidente GIE farlu liggéey ak yeneen GIE yëpp dix personnes lañ fi tànn PME dix e pour ñu ñëw def formation bi. sant yàlla ndaxte séntu wuñ ko woon te daf ñu bett te dinañu amal njëriñ ndax ñun ay PME la ndax dañoo nekk ci trans dañoo nekk ci développement bi te développement boo amul fonds de roulement doo dem waaw. am na njëriñ. buñ ko continuer topp ko dinañu amal njëriñ ëllëg te comme dañoo commencé di tàmbali nii di liggéey nekk ay kii yu ndaw PME yu ndaw dañoo bëgg a dem ba nekk ay entreprise yu mag looloo tax amal nañu njëriñ. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Cheikh Tidiane Ba dëkk euh, Kaffrine nekk un jeune entrepreneur di yëngatu ci wàllu sérigraphie infographe bon ñu ngi ci sant yàlla bu baax. formation la boo xamante ne nii am na ci côté xam-xam bon am nañ ci ay connaissances yoo xamante ne nii bon moo ñu ëppal moo ñu ëppal euh, financement bi ñuy wax am na ci tamit benn expérience boo xamante ni tamit bon franchement parlant waaw ñu ngi jaajë ñu ngi jaajëfal daal ñu bokkal formation bi di jaajëfal euh, suñu euh, secretaire général bu chambre de commerce bu Kaffrine. bon waaw xam nga foofu noonu li ci li ci li ci nekk dafa bari. ba tax na mënuñ tënk lépp ci kàddu nii mais li nga xamante ni daal loolu la ñu jot a waxagum mën nañ ci téye waaw mën nañ ci jàpp waaw mën nañ ci jàpp waaw alhamdulilah am nañ ci yaakaar waaw am nañ ci yaakaar bu baax waaw alhamdulilah. li ma ci euh, li may wax waa chambre de bu Kaffrine mooy euh, opportunité bi nga xamante ne nii indil nañ ko waa région Kaffrine euh, plus particulièrement la commune ah ñuy ñaax daal suñuy moroom. ñu ñu ñu ñu ñu gën a farlu ci seen liggéey gën a formaliser wu bon bépp kayit boo xamante ne ni euh, une entreprise war na ko am kenn ku ci nekk fexee daal ba am ko ba yenn opportunité yi bu ñëwee euh, euh, mënuñ jël ñëpp nag mais ku ci sa wërsëg nekk fekk sa papier yëpp complet na nga mën ci bokk.